président de la république bi mbir bi amee dama ko ko yëgal mu daal di may jox digal ci saasi ni ma na nga woo sëriñ bi nga wax ko ko sëriñ bi bi ma ko wooyee man ma ko yëgal ni ko jot naa ndigalu président de la république euh, son excellence Macky Sall ngir dem Touba euh, waaye laata may yegg sax dina coordonné ak le général des sapeurs pompiers nga xamante ni li ñu amoon fii ci Touba ci engin euh, bi ñu seetloo ni dayo lakk bi toll dañu itte woon indi lépp lu ñu wër fii ci Touba ci ay wàllu machine engin ak lii fay lakk moo tax soo seetloo oto yi yegg si jóge nañ Daaru Muxti yi jóge nañ Jurbel jóge nañ Bambey jóge nañ Gosaas jóge nañ Kaolack jóge nañ Fass Bërigo donc foofu yëpp ci saase dañ leen woo ni bu kenn toog na ñëpp ñëw jubal si Touba mën a fay lakk gi am na lu fi jot a yàqu mais bu fekkonte ni ñooñ ñëpp ñëwuñu woon dina gën a metti te dina gën a Euh, xañ na euh, weesu fii loolu nag mooy rôle état état réactivité la bu jéye amee ci saase bala moo yàgg li gën mooy jéye bañ a am mais saa yu amee tamit ci saase war nañ organiser secours yi ci diir bu gàtt li nga xamante ni moom mooy jéyee jooju ñu euh, indi ci saafara li doon gën a nekk urgence li gënoon a jam mooy ñu fay lakk te yàlla dimbali nañu man laata may dugg Touba sax général bi nee na ma li fi nekk ci moyen ak tamit hmm. may rafetlu loo xamante ni xam nañ ko Touba hmm. waaye tey feeñaat na tey hmm. mooy population yi gis nga ñi dëkkee Touba ak ñi dëkkee ceetu marché bi bi mbir mi amee rek ñoom ñëpp dañu dal di ku nekk jël sa siwo ñiy jël seen paan ñu indi ndox di ci jàpp loolu euh, dañ dañ koy rafetlu loolu acte citoyen la ak waa Touba ci kanam ak waa ci kanam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm loolu acte citoyen la li ñuy xaar ci ñi nga xamante ni mooy population yi te alhamdulilah fii ci Touba gis nañ ni lu fi yaatu la bu dara amee rek ci saasi dañuy gis seen taxawaay ñu ñëw nekk ci wetu sapeur yi maanaam lépp lu ñu yaakaar ne buñ ko defee dina indi saafara ci li xewoon gis nañ ci seen taxawaay bu mat sëkk